mbokki internetu seen acti tv ñoo ngi leen di nuyu di leen a jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm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 daal dina daan Sénégal li nga xam ni moo di 2-0 bi lépp match nag noonu la daal di jeexee ki nga xam ne daal moo di pays baa am na ndam ci kaw Sénégal équipe bu Sénégal nag day daal di daal di dem gën a defaruwaat rek fas yéene daal di jonganteeg yeneen ñaari équipe yi di Qatar ak Équateur. waaye dañuy daal di desandi ci bi lépp coupe du monde ndax équipe bi nga xam ni moo di équipe bu Qatar Qatar nag boo leen ko déggee rek da ngeen xam ne nag bi lépp jongante yi àdduna wërngal këpp ci wàllu football foofee nak ca Qatar lañ koy daal di amalee waaye nag foofee nag lañ ko daal di amalee ba tax Qatar boobee euh, jot nañ ko daan 2-0 foofee nag ca dëkkam di nag euh, match bu njëkk foofee ca groupe A moom mee di Équateur euh, daan daan li nga xam ne rek moo di li nga xam ne moo di Qatar. ba tey dañuy daal di desandi ci coupe du monde ndaxte fi mu tollu tembe moo daal di actualité ci àdduna wërgal këpp ki nga xam ne nag moo di njiitu réewu Sénégal di ki nga xam ne moo di président Macky Sall jot na dem foofee ca Qatar rek ngir amal li nga xam ni moo di remise. de drapeau jëm ci gaynde yooyee di les lions di Sénégal ngir rek seen premier match bu doon amal ndiki tay bi nga xam ne rek dañ leen cee dóor 2-0 moom mee di Macky Sall jotoon na ko teewee ba daal di def li nga xam ne moo di remise des drapeaux te bi lépp match nag dañ koo def rek ci teewaayu njiitu réew Sénégal waaye nag laata mu leen di jox bi lépp drapeau moom mee di Macky Sall jot na leen dénk rek ne match boo leen football rek jàppee leen bi lépp match rek Sénégal la te nag mas boo leen mënti football rek jàppee leen ko comme li nga xam ne moo di final. ba tey ci coupe du monde bi am foofee ca Qatar li dal nag équipe bu Sénégal di nga xam ni ki nga xam ni moo di suñu attaquant. kookee li nga xam ne moo di Sadio Mané dafa daal di forfait ba nag du amal li nga xam ne moo di coupe waaye nag li dal Sadio dal na ki nga xam ni moo di Benjamin li ni mel nag di apotis foofee ci équipe bu France ndax ki nga xam ni moo di Benjamin du daal di rek amal li nga xam ni moo di coupe du monde gannaaw nag ab blessure bu ko daal di yóbbee forfait ba tax na nag ci fépp fu waaye nekk rek mi ngi waxtaanee li ni mel ndax ki nga xam ni mooy Ballon d'Or d'or ak deuxième de son ballon d'or ñoom ñaar ñëpp rek dañoo daal di forfait coupe du monde ñii nag ñi ngi naan coupe du monde sans Benjamin coupe du monde sans Sadio Mané coupe du monde sans Salah boobu coupe du monde nan la daal di war a mel waaye nag premier pronostic yi daal xaw na daal di tag tembe waaye nag dañuy daal di rester focus daal di xool wéy rek xool li ci des lan lay daal di joxe waaye bu ñuy daal di jógee foofu ba dañuy def ci li nga xam ne moo di daal di sport waaye nag dañuy ñëw ci sport national bu Sénégal ñu gën koo xam ci lutte lutte nag ñu koy woowee bëri fii suñu langue ci wolof ki nga xam ni nag moo di ab mbër doon wuyoo si turu Ramdan Ramdan nag dafa daal di ñàkk bakkanam foofee ca États-Unis li ni mel nag ndiki semaine bu ñu génn rek la ñuy daal di jot bi lépp nouvelle ñu daal di xëy rek daal di fësal ni rek moom mee di Ramdan gannaaw bu mu nekk woon États-Unis daal na ñàkk li nga xam ni moo di bakkanam li ni mel intérêt ci képp koo xamante ni da ngay bëggee làmb waaye képp koo xamante ni rek xam nga Ramdan wala mu nekk sa am di jàmm baa rek nga bokk ak moom écrit li ni mel nag di ab tiis moo daal di dal ci li nga xam ni moo di langub làmb waaye nag mbokki internet yi lépp xibaar dinañ leen koo taataanal ndiki fan yii di ñëw dinañ wax ba xam corps bi agsi na ak maanaam levée du corps ba ak di mel nan lay daal di demee teewlu leen ñu rek fii seen chaîne YouTube SENactu TV ba tey ñu daal di desati làmb ndax combat bi dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé bi lépp combat nag bañ koo tëggee yàgg na te bañ ko waroon amal euh, jotoon naa yàgg waaye nag ab blessure bi nga xam ne ki nga xam ne moo di Modou Lo daal dina ko déclaré rek ni dafa am ab blessure moo taxoon bi lépp combat mënut a yem ba fu may wax ak yéen Modou Lo ak Ama Baldé sëgguñu bëree waaye li ni mel nag li ko waral du leen lu dul Modou daal nee na dafa daal di blessé waaye nag bi lépp combat day daal di wéy di bëri coow kaw bi lay combat day daal di wéy di bëri fitna ndax ki nga xam ni moo di ab promoteur bi nga xam ni moo woyo wuyoo si turu Luc Nicolaï ak ki nga xam ni moo di directeur administratif bu daal CNG dañ leen daal di convoqué foofee ci tribunal bu Ndakaaru ñoom nag war nañoo dem daal di teew daal di wuyu ji ngir rek moom nag di Luc Nicolaï ak directeur administratif bu CNG boobu leen di toppee rek du leen lu dul ab ay dal bataaxal yu ñu daal di signé nga xam ne nag loolu la ko daal di rax daal ñoom ñi nga xam ne ñoo di enquêteurs yi dañoo jàpp rek am na leen ci loo xamante ne ci loolu ñu daal di bind ci bi lépp bataaxal ba daat koy signé daal dina am ay njuuj njaaj li nu mel nag tax na li nga xam ne moo di e, police daal di leen convoqué moom moomee di Luc Nicolaï ak directeur administratif bu CNG ngir rek ñu dem tribunal daal di dem daal di wuy ji mbokki ak ci TV tey nag li leen leen indiloon ci li nga xam ne moo di ab journal bu jëm uniquement ci wàllub sport ci maanaam li nga xam ni moo di coupe du monde ak li nga xam ni moo di bref yi ci Sénégal waaye nag teewlu leen ñu nekk tuuti rek ñu jot daal leen di jot dugalal li nga xam ne moo daal di xew fii ci xew Sénégal yenn ci information yu leen di ton taataanal di leen leen ko dëgmal topp leen ñu waaye di leen di abonné te bu leen fàtte di appuyé wu ci cloche de notification bi pour rek bu ñu dugalee yi lépp vidéo ngeen daal si mën di jot